day di ñaar fukki fan ak juroom benn ci li nga xamanteni ni mooy mois de août fii ci région de Diourbel rawatina fi nga xam ne moo di Touba taw la xëyee taw bi nag niñ koy waxee di ko mag naan taw wax set taw bu wut lool waaye tamit yeex na si lool ba tax na nit ñi nga xamante ni ñi ngi dox seen yitte taxuwuñ benn yoon di seelu ñii ngi dugg ci sereet yi ñi dugg ci oto yi ñi dugg ci jakarta yi kon dal loolu dal mooy taw wax set taw wax set li mag ñi wax ne boo ko seeloo da nga guddee àll moo tax nit ñi ñu ngi kon ni dox seen activité waaw lii daal la leen Ndiaye Pro TV jëlale woon fi nga xamante ni moo di Touba ngir di ko xaar ci yeneen ak yeneen ak yeneen abonné rek Ndiaye Pro lépp lu ngeen bëgg a gis te ngeen ko gis lépp lu ngeen bëgg a dégg da ko dégg jaa ngeen jëf